asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi mbokk internet yi ñu ngi am mbégte ak di ànd ak yéen seen chaîne de télévision euh, la TMS TV ci seen émission leerlu nag euh, leerlu euh, leerlu nga xam ne mooy seen émission leeral leeral li may wax rek mooy kenn moo fiy leeral muy kii yor chef di desk religieux de la TMS TV gannaaw bi ñu jëlee nuyoo bi jox ko walla mu Moule Sow mu wasaare ko ci njaboot gi ah oustaz ñu bàyyi la nga nuyu ak téléspectateurs yi sa émission leerlu waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu doyen Abdoul Aziz maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la baalu àq bu baax di nuyu di ziar alxaaji na Moule saw di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla moom itam yàlla defal ko jàmm ak sutura ak mbooleem njabootam yëpp ci barke yonent bi salaay salaam. jërëjëf oustaz. Hmm. tey le euh, vendredi premier décembre. Hmm. ñuy jël tey ñaari thème d'actualité boole ko. Mhm. benn bi mooy. Mhm. Euh, tey mooy journée mondial du Sida. Sida mooy feebar boobu nga xam ne ni génnoon na fii ay quinze vingt ans ci ginnaaw wala lu ko ëpp. Euh, vraiment doon fi faagaagal ah, def fi ay def fi ay ba yu bëree bari bari bari dëgg la dëgg la donte sax nit ñi ñu ngi wax ne wàññeeku nu baax parce que. Mhm. on parle d'un taux de prévalence de zéro virgule trois pour cent. bon. mu tombe aussi. Mhm. ñu ne semaine bi mooy semaine des handicapés. maanaam handicapé mooy. Mhm. ñu wàññeeku euh, euh, affaire ba wàññeeku ci ci ci dund. ku am laago ñi nga xam ne dañu am laago. Mhm. loolu la ñuy wax personne frappée d' handicap physique. te defe naa ne loolu yëpp l'islam am na ci lu ci mun a wax. d' abord bu ñu ñëwee ci euh, sida muy feebar boobu nga xam ne nii dañ ne feebar bu lu ci ëpp maanaam njaaloo moom moo koy indi njaaloo. parce que dañ ne kenn ku nekk bu yemee ci ki mu war a yem. defe naa ne wàllante du am mais xëy na am na yenn xeetu wàllante yoo xam ne koy dee ci comme ngeen bokkul lañ set. ah wala nga dagg ba pare dara di jaar foofu mais. yooyu boo ko xoolee daanaka. bariwul lu lu ñu di wàlle mais daal. Euh, feebar njaalo daal daanaka mooy li ëpp ci li indi euh, feebaru sida boobu te defe naa ne amoon na fi ay jamono. vraiment mu mu mu lëmbee woon jamono trop. oustaz. waaw jërëjëf doyen Abdoul Aziz euh, wax nga lu am solo fa tabaarakallaahu xam nga alquran dañoo wax ne xuusu xisrakum na ngeen jël seen ay précaution lañ koy wax ah. waaw matuwaay. waaw parce que euh, am na loo xam ni tey comme bu la dalee daanaka euh, boo amul kii lool ci ray la la jëm. Mhm. ci ñu ci bëree baree baree bëri foofu la leen yóbbu mooy def leen a faagaagal kon nag yow farata la ci yow nga fexe ba moytu mu bañ laa dal ndax yàlla nee na wala taqtulu anfusukum inna allaha kaana bikum rahiman yàlla nee na bu leen rey seen bopp ndax man yàlla dama leen da yërëm rey sa bopp nag mi ngi tàmbalee ci nga xam ni lii bu la dalee mën na laa rey nga moytu sa kémtalaay kàttan ndax bu fekkee ni yàlla dogu na pour mu dal la moom kenn mënta fexe ba du la dal waaw mais itam nag boo moytoo yàlla mën na laa musal ndax yàlla bu dul woon musalaate du indi du indi baatu na ngeen na ngeen moytu na ngeen jël seen ay disposition seen ay précaution fexe ba mu bañ leen a dal fexe ba mu bañ laa dal nag mooy xool li nga xam ni moom la waa kër docteur wax ah déet docteur attention am na lu ñu li précaution yi parce que dañ ne. Ah. soo demee ba munoo munoo munoo bañ a def yenn yi. waaw ñu jaar ci digg bi. Hmm. mooy na nga jël matukaay maanaam euh, na nga wut ay jumtukaay yoo xam da nga koy utiliser mooy yooyu ñuy wax euh, préservatif. du hmm. gaa baal ñu ci kàddu gi. waaw pour mu ngeen mun a mun a wàllante. mais defe naa ne l'islam waxul préservatif mais beneen xeetu euh, maanaam matukaay la wax pour nga jël ko. waa lislaam moom moom yoonam nekkul ci ku koo xam ni koo xam ni daa dem ba mën mënta téye boppam kooku lislaam du ko wax nu muy def <laughs> parce que lislaam li mu ko sant mooy na téye boppam dëgg la wala taqrabu bul jege lislaam daf ni bu leen jege maanaam bu leen jege njaaloo koo xam ne nag daf laa tere ni la bul jege kon du la wax ni la boo demee ba àgg ca eh, defal nangam def nangam def nangam maanaam lislaam fi muy waxe mooy hmm. tey nit ki bu demee bay takk soxna mm. wala soxna si di am borom kër mm. nanu ànd ñoom dem ca kër docteur mm. ñu defal leen test ba xam kenn ci ñoom amul feebar boobu parce que itam daganul daganul jullit di sëy ak soxnaam di protéger wu di sol préservatif wala yu mel noonu loolu daganul loolu dafa xaram lu dul ni lu dul ni ndaw si même bu fekkee ni planning yi ngay gis yëpp bu fekkee ndaw si mënu koo def te ay njuram jegente na te te bakkanam xaj na ci mhm. lu dul loolu foofu rek la ko lislaam di maye maanaam foofu planification lañ wax foofu planification la xam nga loolu lépp ci la bokk maanaam bañ a bañ a bañ a ëmb wala yu mel noonu waaye lislaam waxul maanaam góor di sëy ak soxnaam di protéger wu parce que ragal feebar bi dafa wax ni euh, feebar bi bala ñoo takkante nañu dem ci kër docteur parce que l'islam dàqul science. parce que science ci alxuraan la jóge dëgg xam-xam boo fi gis rek. xam boo fi gis ci alxuraanul karim la jóge mhm. kon nag lislaam moom noonu la ko tërale ki nga xam ne nag moo romb lislaam ni ko bul jege mu dem jege ba laal ba simmi yooyu yëpp fekk ko ci mhm. kooku nag l'islam yoonu l'islam newul ca la muy def lislaam dafa dafa laa moytuloo comme dañoo wax ni ñaari lañset bu daggee ni dagg la xaw ma lan lislaam ni la kon boo gisee lañset bu nu utiliser ba pare yow bu ko utiliser waaw voilà bul ko bul ko laal jël jël bul ko laal yow daal yooyu yëpp nga xam ni docteur yi dafa wax ni mën na cee wàllante lislaam nee na moytu ko sa kémta laay kàttan bu dee ci wàllum sëy nag moom bala ngeen a sëy ngeen dem ñu defal leen test bu ndaw si amul feebar bi amoo feebar bi falilahi alhamdu bu ndaw si amee feebar bi amoo feebar bi ndaw si faju ji ba wér yàlla baax na bu fekkee waajee ko am waa ji faju ji ba wér lii la lislaam tëral ah mais oustaz xam nga c'est que l'islam day moom wax dëgg yàlla moom moom dafay leeral euh, mais nag euh, xam naa ne daal bu ñu xoolee ci suñ suñ suñ culture maanaam di sëy ak ñu naan ko nañ dem ku nekk xool sa xam naa ne loolu moom xoolante loolu moom duñ koy gis moom bariwul mais daal defe naa ne jullit bu nekk war na mun a moytu loo xam ne nii ëllëg daf koy indil ay loraange surtout feebar bi nga xam ne tey euh, vraiment moom parce que nag naan euh, liñ naan euh, fagaru waaye ba tey mm-hmm. feebar bi même bu reculer. Mm-hmm. oustaz dafa mel ni maanaam mooy yàlla gi njaalo gi moom reculer wu. waaw njaalo gi kat mënta reculer ndax fi nu koy njaaloo fi nu koy defee reculer wul. am na ñoo xam ne ah gisoo fi ñu ñu tabax ay ay immeuble yu mag a mag a mag def ko ay néeg ay apartement ak waaw di ko di ko luyee ñi nga xam ne dañ fay ne di di di moj yàlla ak yooyu ñaa ngi ci kër yi ko def de loolu kay loolu kay du jeex ah? loolu kay du jeex boo yi dañuy ablante ay néeg ak <laughs> loolu kay du jeex ah. eh, ñi ñaa ngi koy def ci kër yi. am na ñoo xam ne seen i biir kër seen biir kër lañ koy defee. waaw seen biir am ñoo xam ni ay ay bàyyi ma lan sax ci mbedd mi lañ koy defee. maa la ko wax. léeg-léeg da ngay dox ci mbedd mi ba yàgg nga gis roq di dafay kurti kurti. te yaakaar na ñaari muus la ndeketey <laughs> ndeketey ñaari nit dafa ne di di di di di def yëfi saay saay. ci marché yeeg ci marché yeeg oto yàqu yeeg gaaras yeeg mbaar mbaaru uude yeeg. tes mburu yeeg. gars yi fépp lañ koy defee. mais yooyu yëpp nag euh, nit ki rek na xam ki ko fi wàcce ku mu doon xam lim ko fi wàccee lu mu doon gis nga doyen nit nit ku yaakaar ni bàkkaar du dara ku dugg bàmmeel benn bàkkaar boo ko amoon benn lu bàkkaar ba ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw di nga ko réccu ku dugg bàmmeel yóbbaale àdduna yiw lu yiw wa bari bari bari bari di nga ko xeet kon nit ñi nañu xam ni yàlla moo ñu bind am lum ñu sant am lum ñu tere daf ñoo bind sant ñu ñu jaamu ko tere ñu ñu moy ko naan sàngara ci moy la bokk sàcc ci moy la bokk fen ci moy la bokk njaaloo ci moy la bokk yooyu yëpp ay moy yàlla la ay yooyu yëpp ay moy santaane yàlla la kon nag jaam bi moo war a góorgóorlu ci loolu parce que am na ñoo xam ni mosuñoo dugg ci auberge te te duñu fendi ndax mooy <laughs> dañuy mooy rek te yëgoon njaaloo li tax mu garaaw mooy yonent bi salaay salaam nee na day day tax day day tax yow doo taaru doo taaru kuy ah njaaloo yonent bi nee na njaalookat dëgg day ñaaw hmm. ah waaw ah mais ça attention hein dama yàlla baal jigéen ñi dañuy jaay seen bopp boo la gisee buñ génnee ci mbedd dañuy defaru ba jekk. macha allah ngay wax doyen. Ah? doyen doyen góor sax ah? buñ ko jàppee puudar ko rëdd ko mu jongama góor. Hmm. waxuma la ak jigéen. mais ñooñu demal xool leen ba nu ba nu ba nu sëlmu. Hmm. maanaam yonent bi salaay salaam nee na ay naaj guddi lañ waaw ay naaj guddi très bien maanaam yonent bi yonent bi salaay salaam gis nga gis nga gis nga àdduna tey sa maam Siraañ Waali bi mu koy misaal ci lu mu koy misaal ajuusun hmm. farukun fii siyaa fii siyaa fii siyaa fii siyaa bi xarubatin hmm. nee na màgget la goo xam ne moom àdduna hmm. dafa sañse sañse xale bu jigéen ba boo gisa da nga koy teg ku jongama waaye bu simmee rek nga xam ne du dara ñooñu bu tey bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu seulement. Hmm. raxas seeni kanam. Hmm. nga xam ne du nu dara. maanaam njaaloo njaaloo yonent bi salaay salaam nee na dafay wàññi taar. gis nga njaalookat boo gis nam boo xoolee ay photom hmm. tey xool ay photom démb xam ni démb la gënoon a rafet. yonent bi salaay salaam ah, nit ñi aussi bu ñuy màgg li naan euh, taar taar amul coloré parce que nit ki buy màgg tamit taaram day wàññeeku tamit. mais doyen. doyen. da ngay gis mag ñoo mag moo xam ne mag la mag mag mag. mais da nga koy xool xam ni mag mi dafa leer mag mi dafa rafet mag mi dafa sopplu maanaam taar taar mooy maanaam wa alqaytu alayka mahabbatan minni lii tax ñi nit gis la sopp la mhm. nga am personnalité dëgg la boo gisee ñu ne njaalookat day ñaaw mooy personnalité dëgg la maanaam personnalité am day deñ dëgg du am personnalité du am charme du am charme très bien loolu foofu loolu laa bëgg a wax <laughs> mooy mooy njaalookat day ñaaw yonent bi salaay salaam nee na itam njaaloo day day gàttal wërsëg day gàttal wërsëg nee na njaaloo tamit dafay gàttal fan hmm. ñett yooyu yonent bi salaay salaam moo ko wax nee na yooyu yëpp njaaloo daf koy def comme nag moom am na ay effet secondaire yooyu moom daanaka abi dangereux pour votre sante la cëm ñu moytu ko kon nag ñu moy ñu moytu ko sori ko voilà oustaz sans transition nous allons passer au deuxième sujet de notre de notre émission leerlu hmm. euh, ñu ngi ci semaine des handicapés mooy way laago oustaz man dama jàpp sax ne euh, tey ay nit ñoo xam ne ay bindeef doomu aadama lañ comme ñun ñu am les mêmes droit am les mêmes devoirs est-ce que war nañ toog sax ba législation bi ñu naan dañ leen di may une semaine est-ce que loolu sax nekkul maanaam benn genre marginal marginalisation oustaz waaw man day yonent bi salaay salaam li mu ji jàngal alxuraan jàngal ñu ko mooy kenn gënul kenn. kenn ku nekk li nga gënee sa moroom rek mm-hmm. booy sangu doo ko simmi. Mm-hmm. mooy jikko ju rafet ak ragal yàlla. ku la gën a ragal yàlla boo ko ëppee alal moo la gën. ku la gën a ragal yàlla bu say bët baax bu bu ay bëtam muuroo say bët baax moo la gën. ku la gën a ragal yàlla bu fekkee ay tànkam baaxul walla ay loxoom te yow nga baax la ko teewul moo la gën. maanaam alxalqu kullum ayaadullah mbindeef yépp ay ay njabooti yàlla lanu yàlla nag mooy xool kenn ku nekk la ko soob ci moom mu bindee ko noonu moo tax yàlla nee na bind bu extérieur bii mm-hmm. yàlla nee na amul solo mm-hmm. yàlla nee na li am solo mi ngi ci biir doomu aadama moo tax ñi nga xam ni yàlla daf daan wax ak ñoom képp koo xam ni mus ngaa ŋàññ rek mbindeefu yàlla. Mhm. wala nga xaw koo doya rek ci saa si yàlla dafa réagir. waa oustaz ñu taxaw foofu c'est-à-dire que da ngay gis maanaam ci kër yi bu fa bu fa ay laago bu fa laago amee léeg sax dañ koy nëbb te doom la ci kër gi wala jarbaat la deret la xeet la ci kër gi. Mhm. et souvent da gis ñoo xam ne nii dañ koy nëbb bëgguñ sax gan gis ko oustaz loolu lan la ci diine wax. waaw loolu li ci diine wax mooy. Euh, moom fii ay suuratin macha rakabaka yàlla kenn ku ne moo xool melokaan wa nga xam ni moo rafet ca moom kenn ku ne melokaan wi nga mel na la neex melokaan wi sa njaboot mel na la neex xam ni melokaan woowu moo rafet ca yàlla moo jekk ca yàlla moo taaru ca yàlla moo tax yàlla bindee ko noonu te yàlla euh, du def dara ci hasard yàlla lu mu def rekk am na lu tax parce que way laago amul bàkkaar ah bon laysa alal ama xaraj wala alal maridi xaraj ah, wala alal araj xaraj alxuraan la alxuraan amul bàkkaar mooy lan déedéet way laago amul bàkkaar boo ko déggee hmm. mooy maanaam am na loo xam ni nit ku mat sëkk sëkk sëkk sëkk moo ko mën comme lan way laago mënu ko nit ku man kay nit ku mat kay li mu mën ca way laa maa ngi nii mën a wax est-ce que ku yàlla téye laa mën naa am na handicapé dañuy jël de am ñoo xam ne nii na ma yàlla baal dañuy dañuy dañuy maanaam dañ ay jigéenu dañuy taxawaalu loolu yëpp am na de oustaz yow tamit am na am na ñu koy def de. waaw mais xam nga bu jegee ñu ñu ñu dem yalwaan yi na ma yàlla baal ci ñenn yi bu guddee ñu defaru ba jekk vraiment toog ci ruq boo xam ne dina am ñu leen fay fekk leen jëfandikoo. ah handicapé. handicapé waaw. ah, ah loolu am na ci ndakaaru gi. ñi leen di ñi leen di jëfand ñi leen jëfandikoo moom ndax am na nañ ay xol. ah am na de oustaz. ñi leen di jëfandikoo am na benn benn benn benn organe bu ma daan liggéeyal. waaw def naa ci reportage. ba hmm. rencontré leen. Hmm. ñoom ñu effectivement. ñu wax loolu la ñuy liggéey moom daal hmm. moom daal. loolu am na sax ñoo xam ne ni dañ leen naan tegtal na maanaam. ay ci ay xar fa xuufu ñu ne da ngay dem ànd ak. laa ko laago. waaw way moom waaw loolu loolu moom. xam nga euh, mooy li alquran wax mm-hmm. laysa ala al ama xaraj wala ala maridi xaraj wala ala al ahraj xaraj mais nag jëfi maa tey mm-hmm. jëfi maa tay moom yàlla du ko yàlla du ko du ko jéggal kenn xam nga yàlla bu ne way laa ko amul bàkkaar ca la nga mënta àgg ci jëfa tax mm-hmm. ndax laa yukallifullaahu nafsan illaa wusaha yàlla tegul kenn lu mu mënul yàlla bu nee taxaw leen julli way mënoo taxaw amoo bàkkaar ci ñàkk taxaw bi yàlla bu ne jàng leen alquran way laa ko ci làmmiñ mënta wax bay jàng alquran amul bàkkaar ci ñàkk jàng alquran ji te dina am yiwu ko jàng alquran yàlla bu ne liir leen alquran way laa ko ci bët mënta liir alquran amul bàkkaar ci ñàkk liir alquran ji boo déggee ñu ne amul bàkkaar yooyoo tax mais kuy njaaloo kuy def yooyu loolu di sàcc ak loolu loolu jëfi maa tey la te jëfi maa tey moom ku ko def yàlla dina la àtte ndax lii nit du fisik ruux mooy doomu aadama ruux dëgg la te ah, way laa wa ma wax la sànq ni la képp koo xam ni ku yàlla daan waxal la hmm. Euh, yàlla boo boo defee loo warta def ci mbindeefu yàlla waxuma nit mais mbindeefu yàlla mm-hmm. gis nga yonent yàlla noox tuddul woon yonent yàlla noox mm-hmm. tuddul woon ah, yonent yàlla noox xam nga lu tax mu tudd noox xam nga tudd mu tudd mu noox maanaam dafa romb benn xaj xaj la romb xaj mm-hmm. te yonent la bi mu rombee xaj bi di ko xool ba yàgg ni ah moom xaj bi moom ñaaw na di xaj bi yàlla waxloo xaj bi xaj bi ni ko yàlla mi la bind ngay nit taaral la moo ma bind may xaj mu def ma nii kon nag maa ngi koy sant yàlla ba ma yàlla ba ma yàlla defee nii du man nga xeeb du man nga xas mais yàlla mi ma bind nga xeeb yàlla ma bind nga xas muy jooy di jooy di jooy di jooy di jooy ba mënatula jooy na ne <coughs> loolu mooy anuuxu ñu tuddee ko noox ñu tuddee ko yontu yàlla noox yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni mooy gën gi mbindéef yëgoon yàlla mus na koo yedd ci ak gumba hmm? waaw yàlla mus na koo yedd ci ak gumba parce que yonent bi salaay salaam dafa am délégation bu ñëw comme ni délégation yi di ñëwee lay kilifa yi am gumba goo xam ne moom itam dafa jóge fee soxla yonent bi délégation bii ñëw na indi seeni i hadiya seen alal ak yëpp gumba gi moom ñëw na moom it soxla yonent bi ngir bëgg lu mu yóbbu bi mu ko waxee mu ni ko xaaral yàlla ne abasa watawalla an jaahul ama wa ma yudrika la allahu yazakka aw yazakkaru fa tanfaahu zikra ama man istaana gis nga yàlla ni ko yàlla bi yonent bi salaay salaam defee ne gumba gi may ma may ma tuuti ma ñëw yàlla ne abasa da ngaa ñëkkal sa kanam ba pare wata walla daal di gumba gi daal di dummóoyu an jaahul ama bi la gumba gi dikkale gumba gi ñëw na di la tàllal loxo kobos la gisul man ya mais man yàlla gis naa nga ñëkkal sa kanam ba pare du mooyu gumba gi ngir wax ñi ci des bàyyil ñëpp te recevoir gumba gi ba pare ndax li ko dal man yàlla maa ko teg te wa ama saa ila fala tanhar bu dee day laaj li muy laaj bu nekk ci yow jox ko bu nekkul ci yow xaarloo ko wax ko wax ñu neex mu toog xaar nga recevoir ñii liñ la jox nga jox ko ko mu dem ku toll ni yonent bi salaay salaam ndegam moom la yàlla di waxeek moom noonu mais ku dul yonent bi salaay salaam boo boo tuutalee way laago ku yor beekeem di yalwaan saraxoo ko kay yaaxay bu ko ci tegal benn baax dëgg la saa fi ñu daanalee mooy euh, nit ki ndax war na am ndog na ko mën a am ay laago ne du ma jéem dara du ma liggéey dara damay tàll suma loxo yàlla déedéet yaa fuus yaa fuus moom baaxul mhm. kunu ala tasabbu bi in am kana mhm. maanaam nekkal ci sabablu rek ci na mu jàppandee ci yow waaye bul am benn laago rek jël jël laago boobu am na ñoo xam ne seen laago sax dañu koy gën a dañu koy gën a garaawal. waaw dañ koy dañ maanaam dañ ciy commerce. voilà dañ koy gën a garaawal di ko commercialiser. <laughs> fekk yàlla bëggewu ko noonu. Mhm. yàlla ni mu ko bëggee mooy. Eh, yàlla teg nga ma laago alhamdulilah maan la koy sante waaye du tee nag ma am jom. du tee fi ma mën a yam ma yam fa du tee du tee su fekkee sama laago gii mën naa ko boole am lu ma liggéey du tee ma dem liggéey yaa ngi dégg du sama laago gii bu fekkee mën naa ko booleeg nangam ak nangam du tee ma def ko mais doo jël laago gi di ko commercialiser di ko gën a garaawal am na ñoo xam ne boo leen gisee. man ñëw nga démissionné leen da leen waroon a da leen waroon a yërëm sax mais doo leen mujj yërëm ndax comportement bi nga xam ni moom la ñuy am. dañ lay wan ni la man laa ko man nangam nangam mel ni yow yaa leen ko teg fekk yow tegoo leen ko yàlla sunu borom moo leen ko teg. maanaam li nga xam moom la la yàlla bindee da ngay xam ni yàlla mi ko sañ moo ko def ci yow mais nag bu bul démissionné ci àdduna bu fekkee ni man ngaa liggéey loo mën a liggéey li nga àttan de mën nga liggéey ko du tee ku la war a dimbali tamit dimbali la am na fi ay milliardaires yoo xam ne ay laago lan du jeex di du jeex di am na fi ay ay boromi entreprise yoo xam ne ay la ay ay ay lanu ay way laago lanu du jeex fii présentateur ay ay présentateur télé yoo xam ne ay laago lanu mm-hmm. ñu nekk ci yeneen i fànn yeneen i métier ñoo xam ne ay laago lañu laago du tax a bàyyeeku ni yàcc ni yasar déedéet man xam naa ñoo xam ni sama ay xarit lanu ay laago lanu ci wàllu bët mm-hmm. ay laago lanu ci wàllu bët waaye macha allahu ñooy dimbali ñiy xool ñoom ñoo leen di dimbali ci lu baree bare baree baree bare moo tax laago nag du taxa du taxa du taxa waaw du taxa nga démissionné ci àdduna voilà parce que loolu nag du sant yàlla boo démissionné rek mooy yàlla ni nga ma bindee neexuma waaw bu fekkee nag yaa ngi yëngu mooy da ngay wan yàlla ni ko alhamdulilah ni nga ma bindee neex na ma waaye teewul nag maa ngi maa ngi yëngu pour nga xam ni nga ma bindee neex na ma bu fekkee mënuloo ko nag mun nga toog bu fekkee mënuloo bu fekkee mënuloo ko nag mën ngaa toog ndax bu boobaa da ngay dugg ci fuqara ak miskin Euh, da ngay dugg ci faqiir ak miskin maanaam man ngaa toog man ngaa toog ku la mën a dimbali dimbali la te yàlla tax ku la mën a dimbali te xelam àggu ci itam nga ñaan ko ndimbal bu la dimbalee ah teg ko ci sa loxo ci loxo yàlla la ko teg bu la dimbali bu itam ah xam ni bu ëllëgee bu xoolee yàlla ñaan ko ndimbal yàlla du ko dimbali euh, oustaz li may daanele rek mooy benn góor dama mos a waxtaan defe naa mos naa ko def ak Matar xaw ma kan xaw ma Moustapha ci plateau dama ciy ñëwaat rek ci koo xam ne dafa juddu indaalewul bët ay tànkam aussi indaalewu ko junn na ba am juróom fukki at fu mu dem dañ koy watat teg ko ci mhm. bu nekkee ci naaj bi dañ koy watat teg ko ci mhm. kenn mhm. mu dundee loolu ba làq juróom fukki at amul jabar amul doom amul dara ci àdduna dégg naa mu toog benn bés nii rek am benn waay. bu ñëw fekk ko mu toog mu yëkkati palaat palaat bu def xéwal ne ko am xew xéwlu mu jox ko palaat bi mu toog xew lu ba pare mu jox ko ndox dégg naa mu naan daal di géex daal di sant yàlla ba mu santee yàlla ka taxawoon ci wetam di seetaan seen bi ne ko waaw yow man de xamulooy sante yàlla mun ne ko ah mu ne ko yow lu la yàlla defal. yow bi nga juddoo bi léegi ak at yi nga am nii te xam naa ne nii ngay dee amooy bët. Hmm. amooy tànk amuloo jabar amul yow benn bànneexu àddina amuloo ko. Hmm. bi nga juddoo bi léegi yow yàlla dafa dara kon nag yow lan ngay sante yàlla mu ne ko laaj nga ma laaj bu ma neex xam nga lu tax may sant yàlla ñu ngi ma jox léegi xéewal ma lekk. ñam bi jaar ci sama put neex ma naan ndox mi bu set jaar sama ma daal mu ne loolu laay sante sama borom ndax heure bii ma toog fii ma toog ni di wax di lekk ni ba suur naan am na koo xam ne mu toog yor àddina li ci biiram mm-hmm. ñu koy sol ay biteel xamul mu ci guddi xamul mu ci bëccëg lu ñu dugal mu daal di génnaat mm-hmm. tey bu ma nekkoon tey man ak yow nañu changer place nga ñëw jël sama place te man ma jël sa place dafay daal di nangu mm-hmm. ndax wér-gu-yaram amul mm-hmm. bu mën a mm-hmm. lekkee kon nag yàlla mi jox wér-gu-yaram mën a lekk ba yëg lekk naa munu mu loolu laay sante yàlla ndax kontaan ci oustaz loolu tàkkatu jërëjëf doyen <laughs> xanaa di la sant di la gërëm di sant di gërëm mboolem ñi nga xam ne ñoo doon seetaan émission bi salaamaaleykum wa rahmatullah waaye ko gëm na yàlla de non gëm na yàlla moom wax dëgg yàlla jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi ci beneen yoon ci TMS TV